Sedima moo di gunge ci seen émission ndogu Tuuba yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa ataa bil bisri wal madadi alhamdulilahi wa salla abada ala lazi bihi lana huda bada sayidina muhammadi wal ali wa sahbihi sawina waali waali mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala ngi leen di nuyu nuyoo bu gën a màgg gën a tedd di jiite ci nuyoo bi ak siyaar bi cheikh mouhamadou muntaxa ibnu cheikh mouhamadou basir ibnu xaadim rasul di ko ñaanal wér ak gudd fan ba yéene ji mu am ci liggéey seexul xadim mu àggale ko tey jii di talaata juróom-ñetti fan ci koor gi ci atum 1440 ci gàddaay gi dëppook fukki fan ak ñeent ci weeru mai 2019 seen télévision bi ngeen baaxoo di topp ci njàngalem sëñ Touba ci réew mi ak ci bitim réew moo ànd yéen tey jii seen émission ndogu Touba fii ci kër sëñ Touba jàkkaar ju ma sëñ Touba ji kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di àndandoo ak yéen ci biir kër gi lépp loo xam ne xew na fi ci programme bi rek ñu ànd koog yéen ba mu ngeen mën a jàkkaarloog moom ci barkeb seexul xadim kon tey ñi ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa Seex Muhammadu Muntaxa Mbàkke yàgg fi lu ti wér kon ñu àndandoo teewlu mbooleem loo xam ne xew na ci émission bi barkeb Sëriñ Tuubaa malaktu bi fadlillahi ma kaana yustahab taataan njàngum xasida mi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah ñoo ko yore ci tàmbali gi ba léegi eh, fas ko yéene ànd ak sëriñ bi ba keroog weer bi di mat incha allah eh, tey nag ñu amaat tawféexu eh, fas yéene waxtaan ak yéen ci diggante bi nga xam ne kuréel gi ñu ngi dem gàttandu ji sëriñ bi ànd ak moom ba ci biir saal bi ñu fas yéene def ab bunt bu ndaw ci waxtaan ci xasida yi waaye lu jiitu loolu ñu leen di yëgal ne tey jii ñu ngi dalal sëñ Mouhamadou Lamine Gaye yéen ñëpp miin ngeen ko ci Al Mouridiyyah ci émission yi bari ni muy def miin ngeen ko ci comité scientifique bi Hizbut Tarqiyyah miin ngeen ko itam ci njàngum xasida mi ndax bokk na ci ñi nga xam dañoo bokk ci kuréelu daaray Touba bu mag bi euh, tey jii nag ñu am fa yéene dalal ko ngir waxtaanee ak yéen lii programme bi tey ñu di leen ne kuréel bu mag bu is bu bu daara Touba muy euh, Hizbut Tarqiyyah bu Touba ñoom ñoo yor njàng mi tey njëkkoon nañ fi jaar dañoo dellusiwaat rek euh, tey jii sëñ Mamadou Lamine Gueye nga wax ñu tey programme ban la ñu waa Touba andil. jërëjëf sëñ Mansour ñoo ngi lay ziar di ziare jullit ñëpp di ziare waa almouridia tey ñaan Serigne Mountakha li mu bëgg lépp suñu borom defal ko ko kon niñ ko waxe woon rek euh, ci ay bis gee weesu kuréel yi tàmbali woon nañ ñëwaat euh, prévoir nañ lu mat fukki kuréel ci programme bi waaye juróom benn kuréel jàllagun na euh, bii nag bokkoon na ci ñuy njëkk a jàll waaye dafay ñëw di jàllaat tey ci juróom-ñetteelu fan bi laata ñuy indi Kaolack suba kon ni ñu ko tërale mooy kuréel 1 bu daaray Touba moo ñëwaat euh, euh, seen programme na ni ñu ko tërale yaatu na euh, waaye dañ ciy jukk rek ay bunt yoo xam ne fas nañ koy ne jàng tey lu mel ne ahbabtu rabbal alamin ak fusti dinañ ko jël ndax boo xoolee Mafaatihul Jinaan juróom-ñeenti bunt la ko sëñ Touba def benn bi di inna laaha maana tàmbale ahbabtu rabbal alamin benn di faqat nasarahullah mu tàmbale fataha wira noonu la ko toppee muhammad yal xalil muhammad yal habib ba ci huda ilahi ba ba ngay egg fusti bi zarfil hasanat waaye nag bu dee ci ni ko sëñ Masambay jànge waa kër sëñ Masambay ni ñu koy jànge nit ki bu fekkente ne waxtu wi ñu ko jox bëriwul am na sañ-sañu jël benn wala ñaari buntu ci biir inna laaha maanaa moo tax boo gisee kuréel un Tuubaa tey ginnaaw waxtu rek la war a jàng daf ci jël rek ñaari buntu muy ahbabtu ak fusti bu ci jógee dina jàng xasida gu ñuy wax chakartu rabbiya muy xasida ak sant ndax dañoo nekk ci weeru koor kenn ku nekk xam na ne sëñ Tuubaa bi mu nekkee ci géej gi e wax nañ ne eggoon na sax muucu xobi garab ngir doge koo waram kenn kuy tudd yàlla wala ku gëm yàlla néew fa waaye cant googu mu daan def nag sunu borom na ko ko tey ci daraje sunu borom ba nga xam ne tey ji kenn ku nekk xam na ne li teew ci saal bi ak li teew ci bit ak li nga xam ne teew na ci ay bernde parce que yéene ba weeru ko Tuubaa yëpp boo ko xooloon noonu la demee mën nañu génn nag yenn xasida yi nga xam ne ci xasida sant la jëm beneen bi di wajaba hamdul xaaliq rahmaani ñu tënke Euh, wa ufawid amri ila allah inna allaha basirun bil ibad loolu bu ñu ko waxee kenn ku nekk sëñ Mansour xelam dina demaat ci géej ndax ndax wa ufawidu maa ngi bàyyeeg amri sama mbir ila ci yàlla suñu borom inna allah naka yàlla suñu borom basirun bil ibad gis na jàmm bi kon dafa mel ne sëñ Tuubaa bi muy bind xasida gi booba coono yi metti na tubaab bi sonal na ko mi ngi ci biir géej gi juróom-ñaari at ak lu topp xeetu natt bu nekk ñu teg ko ko waaye teewul ca départ ba laata muy dem ak ba muy del si yëpp baat ba mu waxoon ba muy dem moom la waxaat bi muy del si mooy sama mbir yëpp bàyyi naa ko ak sunu borom muy xasida gu doy waar gu gu xarañu goo xam ne kuréel 1 bu daaree Touba répété nañ ko répétition bu jaar yoon boo xam ne ci kanam tuuti ñu ko déggee yaakaar naa ni ñëpp danañ ci bég am na bu ñuy wax taxmis ñu gën koo xam ci tuhfatul awaa fii taxmis astaghfirullah taxmis ab chiffre la mooy da ngay def xabbu xabbu xabbu xabbu muy ñeent nga tëje benn xabbu muy juróom xabbu xabbu xabbu ñeent tëje benn xabbu muy juróom moo tax ñu naan ko tam taxmis mooy 5 5 kon xasida ak astaxfirullah la goo xam ne tarjumaan ji rek sëñ Mansour buñ ci duggoon ëpp na waxtu nga xam ne li ci sëñ Touba wax ci ci ay jéggul li sëñ tubaa def ci yàlla ni mu jox yàlla daye bi mu jox yàlla sunu borom li mu wax ci képp koo xam ne yaa ngi tuub say bakkaar ni la ko sunu borom di faral ak furaloo ko moom itam mu nekk xasida gu war a wax ne war nañ koo jàng soog caa teg wajaba nag mu tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam goo xam ne gu doy waar la goo xam ne liñ li ci sëñ Touba di wax yonente bi daw na yaram tax ku nekk xam ne ne fam teg yonente bi moom doomu aadama du ko fa teg buñ defee juróom benn xasida yooyu nag juróomi xasida yooyu nag ci la ñuy jeexale farij nga xam ne kuréel yëpp mën na maa wax ne sëñ Mansour farij la ñuy jeexale ndax xeet wi da koo soxla maanaam lu dimbali xeet wi lu dimbali jullit ñi lu dimbali jullit ñi ba benn yéefar leen not lu ñu mën a dimbali ba sunu jaamu yàlla rafet li sëñ Tuubaa ci far yi yaakaar naa ne xeet yëpp soxla nañ ko moo tax daane kuréel bu ñëw rek moom ngay mujjee ñaane ko. jërëjëf sëñ Lamine defe naa ni programme bu am solo la ñu andil eh, loolu itam mel na ni mbokk taalibe yëpp yàkkamti nañ ko mu tàmbali ngir ñu taataan ko ndax eh, sëriñ bi moom li mu jàngalewaat mooy sëriñ Tuubaa nii la ko daan dundal si njaarim nan ci loolu la barkeelu moo tax tey mu fas yéene bis bu ne mu ñëw fii euh, ci kër sëñ tubaab gi euh, ànd ak mbooloo mi li nga xam ne mooy njàngum xasida yi ndax tamit teew gi ak njàng mi rek ñoo ànd ndax la sëñ Saliou Mbacke waxoon jàngkat yi ñooy laaf yi ñi koy déglu ñooy donk yi laaf mënut a dem bàyyi donk kon tawféex la ñu am ci sëñ Muntaxa taxawal lii nga xam ne mel ñu barkeelu ci la nga xam ne moom la sëriñ bi defoon ndax kat jaamu yàlla moom euh, koor moom xiif geeg mar gi lim ciy bari bari doole waaye dafa mel ni dundal ko ci jaamu yàlla tam lu ci am solo la. waaw jërëjëf loolu lu am solo la ndax boo xooloon programme ren bi rek sëñ Mansour bu ñu demee ba ca muj ga danga gis ne dolliwaat nañ jaamu yàlla gi ak dundal gi ndax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy commission culte bi rek amul benn bis sëñ Mansour boo xam ne danañ danañ wees danañ wàccee lu yees juróom-ñetti kaamil te du bokk ak diiwaan yi. daanaka nag bis bu nekk juróom-ñaar wala juróom-ñetti kaamil boo ko defee fanweeri fan yaakaar naa ne ñaari téeméeri kaamil yi ko jege te yooyu yëpp di ak dolliku ak yokkute goo xam ne am na ci dundalaat gi dem na ba ci nit ñi bu njëkk dañ daa jàng portable yi fii filme yi fii waaye ñun ñëpp am nañu dal la nekk ci seen xol ñu téye ko gën a mën a teewlu xase yi gën a mën a teewlu jataay bi gën a mën a taqamtiku li nga xam ne nii moom mooy li sëñ Muntaxa woote ndax wax naa ko démb rek ci benn média ma ne leen sëñ li tax ñun ñu war a sant yàlla mooy ñaar moo ko daanaka ci kaw suuf mooy bu kenn mer bu kenn dem sawara nit koo xam ne nag bu kenn mer bu kenn dem sawara mooy sa mission wax dëgg yàlla jàppale ko ci dundal wax dëgg yàlla lu war a mën a yomb la te lu war a mën a lu a a barkeel la itam. moom day nit ñi miin nañu sax. daanaka xasida yi moom. am fu mu leen di yóbbu ba eh, teg yóbbu teg leen àggale leen foo xam ni waaye dafa mel ni sëriñ bi moom ku xool ni mu ne tekk lu xasida yi boole bayit bu ne da koy topp ànd kook téere bi tiim ko. dafa mel ne defaat na geneen jàngale ci ñëpp ci ñi teew ci saal bi. waa xam nga Serigne Touba ci boppam moo yéeme te ni muy waxee yàlla di ko waxee ak yonent bi maanaam bu fekkente ne yàlla dimbali na la nga nga mel ne ku xam wala boo nga jéem a xam la muy wax di ko taqamtiku maanaam mooy ñi nga xam ne seen niveau sore na ci yenn kalaama araab am na geneen teewlu gum leen di jox bu dee ku mel ne sëñ Muntaxa nag nga xam ne moom dafa jaar fépp soog a ñëw nga xam ne moom bi mu ñëwee rek wax na kart postale nga xam ne discours bi mu jëkk a def rek su ko neexoon toogaat fukki at wax lam xam ci li sëñ Touba wax ak la ci jublu ak yéene juré ci sëñ Touba am jullit lu mooy tax bu koy bu koy teewlu du mën a yëngu ndax isa katabtu tazza arshul baaqi wa sabahat malaay subaa ku ko mën ku ko ñemee bind ku dul sëñ Tuuba su may bind arsh jaay kursi yu jaay loolu bu ko sëñ Muntaxaa tiimee faaw mën a tekk keneen ku ko teewlu itam da ne tekk te tekk jooje nag mooy tax ñu mën a ànd ak moom di ko tekkeeral ba Tuuba egg ci mislas miha parce que suñu mission mooy Tuuba egg ci mislas miha loolu mooy mission bi te yaakaar naa nii muy doxale bu continuer léegi ñu egg foofu waaw mel na ni sëñ Lamine li nga wax ni seetlu nañ ko ci bu baax ndax mel na saa su eh, saal bi moom bu ko ñi yore bunt yi maye woon dafa mel ne tisbaar dana fekk ñi bu fees mm. waaye nag day wane rek ne eh, sëriñ bi moom fii mu dox jëm mi ngi koy diri ni ñi mi ngi leen fay yóbbaale ndax li nga wax ni sëñ Mansour loolu li ko def mooy gis nga sëñ tubaab dafa nax tubaab bi ci point yu bari nax gi mu leen nax nag dafa dëxañaale ci mission defaraat xale yi ba loolee leen doon téye ci télévision yi di leen ko téye ca barabu fawukaay yi lijjanti na ba ci biir ba itam yi bu ñu ko dee jàng sunu xol day baaxaat for force day dem ba xale bi la nga xam ne moom la naroon teewlu ci am po di ko teewlu ci mbirim àdduna yi tey jii boo xooloon ñii fi teew ci saal bi Hizbut Tarqiyyah ci gën a néew koo fi gis rek jàngkatu xasida la wala muy waxtaan ci xasida wala mu bëgg a xam kuréel bu bëgg a avancé fooy jaar ba avancé ndax ñu bari dañ doon jàpp ne kuréel 1 ak kuréel 3 moo am te gis nañ fi juróom-ñetti kuréel yoo xam ne tey jii bu ñu la ne woon ba kan nga di nga duggaat biir defaraat sa jury bu baax bu soog génne ki ci bi loolee nag moo dugg dugg tu tànk yi nga xam ne suñu boroom dina ko wëlbati ci barkeb Serigne Touba ba benn xale buy taxawaalu duutu am ci Touba benn xale buy mooy duutu am ci Touba benn xale buy def lu ñu diglawul duutu am ci Touba ñëpp dañuy continuer di sellal mooy mislas mi wala rek dama ne mislas mi nga indiwaat mislas mi rek. dëgg la ndax ndax li nga wax nii tamit tudd nga Touba waaye mel na ni euh, média yi ñu ngi koy jàllale ba ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ak ñëpp ñi ngi dund loolu mu may fàttali rek wax joo xam ne euh, sëñ Atou sëñ Atou sa koo wax Cheikh Saliou Mbacke yàlla suñu borom yokk leeram mu wax ko ni ko kuy ñëw ci yow di la wax programme dafa xamul yow am nga programme sëñ bi moom am na programme boo xam ne mel na ni mi ngi koy déroulé mooy li nga wax rek ba muy door a suñ sëñ taxaa yàlla na ko suñu borom yàggal lool mu ànd ak wér ba mu dikkee feuille de route la dressé feuille de route boo xam ni li mu am pas-pas mooy nit ñi jàng nit ñi jaamu yàlla nit ñi jubal loolu rek ci loolu la nekk te mel na ni jéego bu mu seqi rek loolu daf ci daal di feeñ euh, te fii ñuy wax ak nag mel na ni euh, mbokk taalibe yi ñëpp yàkkamti nañ kenn taxawatul ndax yàkkamti nañ sëriñ bi dugg ci biir saal bi mm. ba njàng tàmbali Euh, gis ngeen ko ci image am na kuréel boo xam ni moom moo dem gàttandu ji sëriñ bi loolu yit ci programme bi la am na ñu ko war a gàttandu ji ah am na ñu yor njàng mi tey am na ñu ko war a gunge loolu lépp di programme boo xam ne dafa mel ni euh, liggéey bii nga xam ne moom mooy li feeñ ci njàngum xasida yi dafa mel ni liggéey bu làqu la boo xam ni waajtaay wu làqu la boo xam ni dafa mel ni programme la structure la administration la boo xam ni defe naa ni yow mi bokk mm. ci euh, service administratif bi nga xam ni moo yor ñiy taxaw wàllu njàng mi mm. loolu defe naa ni mun nga ci wax tuuti. xam nga programme yi lu lu jàll rek gars yi dem nañ ci leneen fi mu toll nii bi koorug daaw jeexee ci lañ jël suñuy notes jël jëlaat sunu erreur yi nga xam ne jàpp nañ na luy nuuru erreur la war na cee am ak lan moo koy baaxal déwél ci loolu ngay dema ba gis nga jëli gi ngay wax rek dañ koo saytuwaat ba dugalaat ko ndax muuñum nit ku baax muuñam. dafa am lu muy def ci ab taalibe ndax wax nañ ne Serigne Moussa Ka mas nay liggéey kër sëñ ba mu yàgg mu ne bu ma demoon ba sëñ Touba xam ma suñ borom deseelatuma dara bu ma demoon ba sëñ ma rek suñ borom deseelatuma dara bi mi bi sëñ Touba dox ba mu yàgg mu ne ko Moussa yaa ngi ci liggéey bi dafa xam xam la def kon muuñum ku baax dafa baax te gàttandu gi ñu gàttandu sëñ Muntaxa mu tàllal loxoom ne muuñ bakkaar bu am ci suñuy xol loxob sëñ taxaa bi daf koy effacé directement yow doo ko gis mais effacé na ko loolu mooy liggéeyal ku baax moo tax gàttandu bi da ciy am gunge bi da ciy am te gàttandu bi ak gudde bu ci ne am na xasida goo xam ne moom lañ cey jàng koo xam ne jàpp nañ ne mooy tax ñu gën a mën am ndimbal ci sëñ bi boo xooloon bu ñuy gàttandu danañ jéem a wut xasida goo xam ne dina bégloo sëñ Muntaxa buñ koy gungee danañ wut xasida goo xam ne dana bégloo sëñ Muntaxa ndax mbégam boroom jamono dafa bari lu muy raxas ci ab julit dafa bari lu muy def ci nit te sunu barke yëpp ci loolu lay aju loolu moo tax ñu programmé ko noonu. jëf sëñ euh, Lamine defe naa ne li nga wax ni lu ama ama am solo la nit ñi teewlu ko te xam ko Euh, te xam ne lii feeñ ci xasida yi euh, sëriñ bi moom dafa mel daf ko delloo ñu ci jéem a sonn rek. Mm-hmm. ndax moom boo doxee moom mu gàttandu la te loolu moo feeñaat te nii nga xam ne xol yëpp gone yëpp ni ñu xiirtaloo ci njàngum xasida mooy wane ne ndimbalam mi ngi sotti ko ci ñëpp loolu nag nañoo nañu ci sant ndax sëriñ bi dolli ko. Mm-hmm. kon mel na ni fu jàmbat di am feneen lam bi am waaye fii moom li nga xam ne moo feeñ bu wér mooy sant sëñ Tuubaa te xam ne ah, ñi ngi ci yoon ñi ngi dox nañ am pas du ñu wa dellu ginnaaw du ñu xool ndeyjoor du ñu xool càmmooñ dox jëm ci kanam lool rek mooy li nga xam moo ci am. Euh, dafa mel ne tamit euh, programme bi wax nga ko sëñ Lamine jaamu yàlla gi ci la euh, wàllu ndogu yi buñ ci tolloo ci la muy diggante boo xam ni nit ñi dinañ fi dund loo xam ni dana doon yóbbul boo xam ne buñ demee dana leen def aw tàngoor ba bésu suba sax bu ñuy dellu ñuy indaale tàngoor ba keroog weer wi di mat te itam. bu ñu fàtte ne sëriñ bi moom ci bisu korite ga bi ñuy jàng ci it euh, xutba bi ñuy jàng ci it gi dafay wax ne kat digal naa leen ci bis ak ginnaaw bis bi kon fii ñuy waxe seen ngeen ko moom Cheikh Mamadou Mountakha yegg si na euh, mi ngi waaj ñëw kon ci saal bi euh, nga xam ne kon ñiy jàng de dem nañ gàttandu ji ko mi ngi nii sunu borom yàlla na ko fi yàggal lool te mu defal ko wér lu mu fi yëkkati ñu fas yéene ko ànd kook moom mel na ni gis ngeen ko yëngu baa ngi tàmbali Eh, kenn ku ci ne mel na ne yaa ngi yàkkamti mënatoo taxaw ngir rek gaaw sëriñ bi dugg si ba njàng mi tàmbali loolu mooy li nga xam ne fi lañ toll kon ni ngeen ko gisee mi ngi nii ak jëmmam ju tejj di waat ci oto bi ngir wàll eh, ñëw dugg si dégg ngeen tamit kuréel bi nga xam ne ñoo koy eh, gunge ñoo koy gàttandu ba keroog mu yegg si ci saal bi kon euh, alhamdulilahi rabbil alamin bi ñu fekkee lii euh, ñaan yàlla fekkewaat ko ba keroog weer yu mat yaan yàlla ànd kook moom ay at yu bare bare bare te suñu borom yàggal ko fi loolu te ànd ak wér kon jërë ngeen jëf ñu may leen kon ngeen teewlu xasida yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Touba kon mbokk yi ñu ngi fi seen émission ndogu Touba fii ci kër sëñ Touba gi ñu ngi ko waxoon rek saa su ne ak ne tey jii nag ñu ngi dajal ñu ngi dalal suñu wëlëre suñu xarit suñu sëriñ sëriñ Gana Messere Maxtaar yaakaar naa ne ñëpp a ko xam ci waxtaanee sëñ Touba sëñ Gana ñu ngi lay nuyu te di la siyaare ñu fas yéene waxtaanee sëñ Touba ak koor gi ak ko daan dundale ci njaareem ak sëñ Touba. asubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbi wa sallam jërëjëf sëñ daam noo lay nuyu di la ziar di nuyu bokk yi nu seetaan ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu di ñaanal cheikh mohamadul muntaxa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba li naal yëpp yéeni ko liggéeyal sëriñ Tuubaa mu defe ko ni ko bëggee di jaajëfal waa xisbu tarxee yi ñoom ci seen taxawaay ci jiitul jawrin Serigne atu Diagne di ko ñaanal yàlla suñu borom gën koo kàttanal te gën leen a may ndam ci liggéey bi ñuy liggéey Serigne Touba yàgg nañu koo wax liggéey bu sagu la liggéey bu taarool liggéey bu mat la waaye ni nga ko waxee léegi nag euh, Serigne Touba ak koor ni nga ko daan dundale di ko di taxawoo mooy euh, taxawwaay bi nga xam ne borom bi subhaanahu wa la moom la ca bëgg ndax dafa am lu tax mu wàcce woon koor ba mu koy wax dafa wax ne kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun nga xam ne ragal yàlla moo taxoon te Serigne Touba amul am kem ci ragal borom bi subhanahu wa taala ndax ragal yàlla euh, am piri la am mooy jëfe lam la digal te bàyyi lam la tere te moom rek moo daan wax ne lu yàlla digle def naa mësuma def lu muy tere lu mu dogalit neex na ma kon loolu mooy dëgg-dëgg ragal borom bi subhanahu wa taala euh, Cheikhul Xadim moomu nag Euh, dafa daan taxawu koor taxawaay bu yaatu boo xam ne bu weeru koor mu saa ñëw dañuy wax ne sax weeru koor ak weeru gàmm ndax daana waxal boppam ne sama weer weeru koor weeru gàmm loolu bind ko ci diwaanam boobu nga xam ne da koo tënke cheikh ramadan weeru koor ci lu baree bari wax ne it weeru gàmm ak weeru koor weeram lañ te weeru gàmm ak weeru koor it ñoo koy seeral ci yàlla ne moom soppe borom bi la subhaanahu wa euh, mu nekkoon loo xam ne it fu mu ko mas di taxawal fépp ci béréb yu mas doon ci àdduna moo xam mu yemale ci wet ak wétaliku waaye waxtu wu mas a doon da koy da koy da koy da koy wane ci ak billi wane ko ci yaatu xar kanam wane ko ci tatagal ko wane ko it ci di ko ci di ko dalal te loolu boo demee ci xasida googu mu tuddee yaa xayra dayf nga xam ne 1315 la ko taalif bi mu koy taalif booba mi ngi ci géej gi booba ci tumuranke la nekk mu bëggee ndogu du ko am bu bëggee xëdd du ko am waaye teewul nag booba ndox booba ndoxum garab na eh, xobi garab lay mucc ndox mi di ko di ko di ko yàbbi ci la daan eh, doge weeru kooram nga xam ne du am xëdd du am ndog waaye teewul it mu koy dalal yaa xayra dayfin ata bil bishir wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adid nga xam ne yow weeru màgg wi weeru nganilu weeru sel wi ñëwal maa ngi lay dalal maa ngi lay ndokkale maa ngi lay ubbil bunt yi maa ngi lay yaatal ndax yaay weeru màgg ci yàlla borom bi subhanahu wa taala di weeru màgg ci borom xam-xam yi waaye du meer woo xam ne bu màgg la ci way ragal yàlla yi di ngir dindi ay bakkaar dindi ay ñawteef waaye di weer woo xam dañ ciy jëng seytaane na nga seere ne yow weeru koor man ku la bëgg laa ku la sopp laa loolu la mu nekk ci géej gi lépp noonu la koy woore eh, ba mu fa jógee ba mu nekkee gànnaar noonu la koy def ak la muy tàng-tàng muy wéetal borom bi di ko yaamu ndax waxtu wu nekk eh, moom la muy bindoo ci du ko dul mooy alaylu xaaimu wa nahaaru saaimu wa dikru daimu muy taxaw guddi di naafila wóor bëccëg yi di jàng alxuraanul karim dama ñëwee ci yéen kasaalik bi mu ñëwee njaareem it noonu la fa nekkee woon nga xam ne euh, booba it tey jii dafa yéeme nii nuy dundale rek nga xam ne booba fu ne la nit ñi bàyyi ko di ñëw fi moom xasida yi di jolli alxuraan ji di di di jolli bernde yit di baawaan nga xam ne eh, loon koor googu ak koor gi am na bis boo xam ne sax dafa jàngulu xasida ak yaa xayra day fi ku ñuy wax sëñ Mahmoud Fall mu ko jàngee ba yeggal sëñ bi ne ko iqra shaqiqataha yaatal busharaati jàngal doomi lay ja yaasal busharaat bi mu yaasal busharaat ba yeggal mu ne ko yaagu jëkk gi bi ma koy taalif dama séntu weeru koor gi yaagu mujj gi weeru koor gi na ko diggante yaari yaay yi nag muy diggante yaa xayr lay fekk yaa sel busharaat gisuma fa kuy togg ci cin waxuma laak di ko mos waaye dañuy wax ne sax weeru koor ci la daan gën a euh, tabe ci la daan gën a belli ci la daan gën a ubbeeku noonu mu ko daan defee ci ci weeru gàmmo mooy di ko dundale nii rek ci la ci jàng alxuraan jàng xasida ak bernde waaw loolu daal ab taxawaay la boo xam ne euh, sëñ Ahmadou moom la sëñ bi daan taxawee lenn ci ci ci weeru koor ñu gis ne Cheikh Mouhamadou Mountakha bi mu ñëwee taxawaay bi nga xam ne moo taxaw ci yoonu Cheikhul Khadim maanaam wootee ko woote woote moo xam ne mboolem mag ñi ak seex si ak kilifa yi kenn ku nekk bis bu nekk yaa ngi ñëw ndax gis nga bi nga dugg si léegi gis nga kilifa yi ni ñu dugg kenn bëgg koo wuute ngir ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha wootee noonu la ko Sëñ Tuubaa daan wootee taalibe yi tamit kazalika kër gi day fees dell bis bu nekk ci waxtu bu nekk te mu ànd ak benn yi ànd ak jaamu yàlla goo xam boo xasee dugg ci saal bi lépp jaamu yàlla lay doon daanaka rek mën naa ne àjjana lay doon. doo mm-hmm. ngay génn. waaw loolu mooy xam nga ñaanu Sëñ Tuubaa waxtu nekk day dal. durriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabiyil Mustafa tajtahid wa hab lana durriyatan tudiimu al amal as-saalih yaa Xaadim Sëñ Tuubaa danañ ñaan yàlla njaboot goo xam ne dañuy ñëw yeesal lan la ñuy yeesal sunna su yonente bi alayhi salaatu salaam Sëñ Tuubaa ci lii la nekkoon mooy dundal yonente bi alayhi salaatu salaam ak roy yonente bi alayhi salaam kon tey bu ñu demee ba jamono ñëw Cheikh Mahmadul Muntaqa yàlla ko fi yàlla doole yàggal jël taxawaay bu mel ni nga xam ne xoolal li ci nekk ci dundal bokk xoolal li ci nekk ci ci ci ci ci xamante te borom bi bi mu bindee nit ñi wax nii naa xalaat naa ko min zakarin unsaa wa laa ko shuu'uban wa qabaa'ila li ta'aarafu a ta'aaruf mooy xamante mooy indi jariñante mooy indi dimbalante tey jii bari na ñoo xam ne seen i xol dafay gën a nammi nammiku ndax xasida yi fi fiy jàng ndax xasida yu safi fu'aadan araahul ada wa yaddu sada wa salaamu maanaam jëmmi xasida day raxas xol boo xam ne dafa lëndëmoon tey jii nga gis ñi nga xam ne ñoom la bokkal Seexul Xadiim di ay rakk ci moom kenn ku nekk ñëpp ñëw boof ci wetam ñi nga xam ne ñoom la ñooy seex yi kàngam yi gàddu woon yoon wi ñoom it ñëw boof ñi nga xam ne ñooy taalib yi fenn fu nekk nit bàyyi ko am xemmemteef ak mbégte moom dundal ga ko sëñ bi doon dundal ca njaareem tey mu koy dundalaat fii ci ëttam bi nga xam ne mooy mooy Touba te xam ne weeru koor sëñ bi da ci am bu rëy weeru koor ci la yoonu murit weeru koor ci la jàkkaarloo woon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci euh, fii mu jox ko contrat bu rëy bi mu si signé weeru koor ci la jotoon alwilul maxuusa ak yeneen ak yeneen yoo xam ni ngëneel la kon sëñ Muntaxa loolu la ñëw ngir yeesalaat ko te Sëriñ Tuubaa la ma waxoon ne yàlla jox na ma loo xam ne sama tey ju nekk day gàcceel sama sama démb mboolem li fi fi bàyyi woon muy troisième ba tey maanaam nga xam ne bi xidmatil kitaabi wal hadis woon ñu ngi may doon na ci liggéeyal alxuraan ak hadis loolu la sëñ Muntaxaa ñëw di ko yeesalaat waxtu bu nekk gis bi mu ñëwee dafa soññ nit ñi ci xam-xam soññ nit ñi ci jaamu yàlla ba noppi nag soññ nit ñi nag dox jëm ci sëñ bi nga xam ne baat bi mu daan wax ñu war koo dégg di ko bàyyi xel mooy sëñ Tuubaa malaaka yebbu ko ab yonent yebbu ko nga xam ne loolu li muy wane mooy la ko moo sedd ab xol te dal am xel te buur yëkkati te du sëriñ sëpp ak yëfiri kenn yebu ko li sëñ bay jaxate waxoon kon kenn kenn yebul sëñ bi kon nag loolu la ñëw di ko wanewaat nga xam ne dafa wanewaat image yu yoon wi wanewaat melaw yi tey jii ñaata nit ñoo xam ne nii bu ndog masaa jot bi ñuy jaar fii ña ngay yàkkamti ndog fekk leen ci àll bi tey dañuy ñëw dundal seen xol ci xasaa yi di jàng ko ba noppi teewlu ko njàngum xasida yi ba noppi yemu ci nag bu dog jotee macha allah nga xewlu na nga war a xewlu ànd ak nag organisation bu mat nag organisation bu rafet yaa ne boo ñëwee ci biir ëtt bi day mel ni niñ ko mag ñi daan doxale boofu nga gis kees yeeg béréb ñu ne sëñ baa ngi fi njaboot gi war ko macha allah loolu sëñ ahmadou daam wane na rek ne la sëñ Tuubaa ne woon aatayta ni mal xal ba ansa kullama maba mina durri maxota zulama lépp loo xam ne metti woon na ma daloon na ma démb ci coono yàlla far na ko ba fàtte naa ko tey ji bindiw ya fay na gaal misaal moom rek lay wane sëñ Ahmadou Wane. waaw tey xam naa ne boo gisee tamit woote bi sëñ Mouhamadou Mountakha Mbacké woote dafa ànd ak tamit maanaam mu woote maanaam mboolem ndog yi yi nga xam ne moom daan joxe yëpp mi ngi ci ginnaaw ñu koy joxe fii nga xam si Cheikh Lappé moom du sax baas bi ndax nangu nangu ndog ndog yooyu kër gi di riir ci wàllu zikarulaa di riir ci wàllu xasida maanaam boo jàll ci ginnaaw nii noonu tamit lay ni xasida yi riire fi noonu la mbir mi riire fi wàllu Baay Faal gi ci maanaam ndog yi di ko joxe maanaam da lay yéem a Sëriñ loo xam ne daf ñu gën a yéemaat ci Seex Muhammadu Muntaxaa waaye nag li ma gën a yéem te ma di ko laajaat mooy nangu gi giñ ko nangul nga xam ne mboolem ak seex xam nga loolu nag Sëriñ Muntaxaa nag lañ naan kamaa tuddiñ tuddaan loolu lépp la lañ lay fay waxuma la kilifa yi waaye bépp jullit bépp taalibe ëmbal nga cofeel Seex Muhammadul Muntaxaa ci sa xol ndax Sëriñ Muntaxaa dafa wone yoonu topp xam nga Sëriñ Muntaxaa dafa wone ni ñuy toppee jàngale yoonu toppin ba yàlla dogal tey mu wëlbatiku moom ci boppam ñëpp di ko topp xam nga loolu moo nekk li gën a yéeme mooy moom moo jàngale ni ñuy toppee ba ñëpp di ko tey ku ko mës a féete way jur sëñ Muntaxa topp na sa gannaaw nongul na la jëfal na ku ko féete woon wàllu magit nongul na la topp na la ba lépp tey ñëw te loolu moom da koy waxal boppam moom day waxal boppam ne man ne damaa sant yàlla ndax ñëpp dañ maa nongul sëñ Muntaxa ñëpp dañ ko nongul ndax sëñ taxaa dafa ñëw ngir yéwénal la sëñ Tuubaa doon wax ne yàlla desal na ma fi ci daraja yonent bi may kawteef ku dëppoowul ak man loo ragal ngay dajal mooy Sëriñ Muntaxa rek ndax fi ne tey jii dafa ñëw fekk lim xol yi nit ñi fi seen xol yi ne ci bëgg sañ Tuubaa fi seen xol yi ne ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa fi seen xol yi ne ci bëggante ak jàppante mu fekk leen fa tey jii boo xoolee da nga gis waa kër Cheikh Abdoul Fadal ñëpp daje fi ñëw ànd ak moom te tey jii nungul googu ñu ko nungal moo waral tey bi mu wootee ñëpp wuyu ko tey jii Baye Fall yaa nga ne ña ngay sikar damay wax ne ndogu yi moom ñaar rek lay metti kun ko santut ak kun ko yëtut koo xam ne soltuñu la ko ngir nga di ko togg di yóbbu ak koo xam ne buñ ko toggee duñ la ko yët ñooñu nag moom seen yoon nekku ci bu boobaa nag kon la ngay yóbbaloo mooy yàqub jàmboor bu ci sa biir dawee ah da ngaa doy waar rek waaye yow ginnaaw gi loolu melowool fi ne li muy jàngale mooy xoolatee ji boo ñëwee da nga fekk waa Cheikh Ibrahima Fall dikrullah ndog yi ñu ngi koy joxe nga xool fii tey xisbu tarxiya taxawaay bi ñu taxaw ndog yee fee xaside yi ànd sikar si ànd ñëpp wuy si Cheikh Mamadou Mountakha waaye nag mu am woyef gu toll ni ak baax gu toll ni bëgg dimbal dimbali nit ñi bëgg a dimbali gu toll ni wàcce boppam ñëw teew nga xam ne dañuy wax ne lillahi xawmun man nazara ilayhim nasratan la am na jàmm ñooñ bu sa nga texe ba faw te doo texee di ko ana Cheikh Mamadou koo xam ne lépp mbégte la boo ne ko jàkk rek yëg yàlla boo ne ko jàkk rek dégg ko ndax li ñuy wax ci sayxu yi daa daje ci moom mooy anna xitaabu tanmiitu lil xaal wa anna ru'yatahu tasidul fahaman mu xaalatatu musiru lil anwaar fi basatil kamil nga xam ne kon boo nee ko jàkk yëg yàlla bu kat doomu waxoon soññi la dolli la loo gën a jaxasoo moom it gën a yëg suñu borom kon yàlla ko yàlla yàggal te te dolli ko tawféex euh, yàggal leen yéen ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne euh, yéen a ngi koy def di jaajëfal sëñ aatu ni ma ko waxee woon si njëlbeen gi wax dëgg yàlla euh, position bii ngeen xam ne taxawe nañ ko lu sagal yoon wi la ndax wootewul ngir jëme ci lenn wootewul ngir jëmee ci fenn lu jëmmal sëñ Tuubaa amul moroom lu jëmmal sëñ Tuubaa kenn la lu jëmmal na yàlla fay na sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa dana wasala lii xat an jazaa'ullah muqalladan bi qadri seet la payu yàlla agsi na ci man lii dafa bokk ci firnde yi wane yooyu xam nga ne ba muy ramadaanu ay sës bay sësam ba muy wax dala toa bi na xadimi rasul min ama aysi ila ami rahim kooram googee na mu wéete woon gisul ku ko wétali gisul ku ko jàpp mu boole kook nekk fii di coon a mag ñi daw ñuy wor ba ngoon kolkolub cere wala ngëbu pep kibéeru seetaloon ndox la ñuy jàllale tey jii jumaa ji noppi kër Sëñ Tuubaa ne fi njaboot gi teew alxuraan ji xaside yi di liir dëkk bi ñuy jàng xaside yi moo ko moom taalibe yi moo leen moom xaside yi jàng moo ko moom li ñu togg di ko ëndi moo ko moom loolu mooy fayu yàlla ci Sëriñ Tuubaa kon Sëñ Muntaxa yàlla na ko fa yàlla yàggal di leen jaajëfal yéen ci seen taxawaay baax ni ma ko waxee woon léegi yàlla yàlla gën leen a doolee yéen waxtu nekk ndax li ma mën a mënalul Sëriñ Tuubaa man ku ma gis nga mënal ko ko rek da may neex loolu laa daan wax toujours ci Cheikh Béthio yàlla na ko yàlla dolli ay wax ne li nit ñi gën a bëgg muy màggal gis xol gën cee jëm lam cee jëf mooy is bu tarxee yi bu màggal gi ñëwee ni ñuy mel bu liggéeyal sëñ Tuubaa bi ñëwee tey ji xoolal fii ni mu sagoo foo romb ci kër gi ni dëkk bi dundee alaaxa bi fi am boolewaat bokk gi jëfaat yu mat yi loolu daal yàlla na yàlla fay leen taxawu leen noo ngi leen di sant di leen jaajëfal di la gërëm yow sëñ Ahmadou Daam nag di am mbégte ci taxawaay bi ndax liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo wér sa taxawaay yàgg xeeñ ko lu baax yàgg a nemmi ko lu baax moo la may tey nga dem ba agsi fii ci position bi kon yàlla na yàlla gën la cee taxaw gën la cee jàppale ba li ngeen ko yéene ngeen defe ko ci wasalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Gana Messere Maxtaar waxtaan wi am na solo comme ni ñu ko waxee woon rek moom sunu kilifa la sunu xarita ñu ngi koy ñaanal ci kàttanu yàlla sama borom guddal fan wi yokk ak wéram ci barkab Seexul Xadim ba yéene yi am ci liggéey Sëñ Tuubaa mu àggale ko kon ñu ngi lay sant di la jërëjëf ak Seex Xaadim bi bisimilah barke sëñ Touba kon ni leen ko waxee woon rek ñu ngi fii seen émission ndogu Touba ànd ak euh, sunu jànkat muy Serigne Malick Fall di jànkatu xasida bu ñëpp xam yaakaar naa ne ko miin keppaaru sëñ Sidi Muxtaar daa nga fa gis te saal ba mu fay jàng lu bëree bëri kon sëñ Malick Fall mi ngi nii toog kon sëñ Malick bisimilah. yaa mukrima tay fi jaaran kaana aw zaara عن قديم من قبل أو سارا يا مكرم ضيف جار كان أو سارا يا مايا عن قديم من قبل أو سارا ناداك في البار بعد البار قادماكم واليوم خوت له بالله ما اختار أكرمت بقراء أمن وتكريمات فاز عن جملة الأسواء أستارا خليت أن سوى رضوان قبل كما عليته بمنى دارين مبرارا بك انت سيره لله مرتديا عنكم وقد آسأ وارا وأسرارا أمنته من سخاء إن فائزا أبدا خلا وخيبا لكم لا يدخل النار نال المنى ما سبا ما بدوا قدر من مبتري منه إن البحر دينارا من مستر اللوكا عيس تأت أبدا كما له قدما يواه أوتارا ولا رأين بيا سن من منصرفا وكل ما في دوم رندب أوتارا لخيره ينتهي إبليس في أبد كبا ربك تاخ مينا وأكدارا أنت نبي رسول للمصطفى ألمن صلى عليك الذي تبديل قدارا إني لجارك يا خير الورى أبدا عليك سلم من كل لو سارا صلى وسلم لا شريك له عليك يا من به لي خط أنصارا لي خط مطلبتي خديت لي أربي ما أوت أني أخاب لن يومي أوسارا سبحان ربك بسنة بسنة السلام الحمد لله رب العالمين yal na kànd sëñ Muntaxa wóor ko at yu bëree bëri Cheikh Sidi Muxtaar yal na niñ ko waxee rek ko dégg xam ne am njàng moom macha allah ñu koy ñaanal sama borom kàttanal ko dolli ak wér mboolum xasida këpp ci kawam këpp suñu kaw ci barke sëñ Tuubaa fi nga bëgg a yegg ci xasida yàlla nga fa yegg barke sëñ Tuubaa jërëjëf badalia anna allah jalla jalaluhu barke sëñ Touba kon ñu ngi fii ci kër sëñ Touba gi ci émission ndogu Touba ni ñu ko laa defee rek ci mbooleem kuréel yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi ñu ngi tey nag toog ak waa sécurité ñu fekk sëñ Aliou Guèye bi nga xam ne mooy jëwriñ ji ak ñi nga xam ne ñoom la àndal yépp ci liggéey bi koy sëñ na Aliou li nga xam ne mooy liggéeyu sécurité xam na nu yombut moo xam nit ñi la moo xam bagage yi la moo xam saytu gi la te boobaag yéen yi ànd ak doomu aadama yi ak mboolem yi nga xam ne ñu ngi ci biir kër gi seen liggéey boobu nu ngeen ko ak lu ngeen ci saytu boobaak léegi euh, salaamaaleykum euh, ñu ngi leen di ñuy di leen siyaar di leen balu àq di leen baal àq di ñaanal mu Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér kon mel na ni euh, wàllu sécurité bi nga xam ne moom lay junj léegi ni nga xam ne noonu lañ koy saytoo mooy nañ ko defee woon daaw rek ànd kook mbokki taalibe yi ànd kook mbooleem secteur yi nga xam ne dañoo nekk ci biir Hizbut Tarqiyyah di yëngu muy ñi nga xam ne dañoo féete ci wàllu euh, sonorisation nga xam ne dañuy indi ay bagages yu sew yoo xam ne dañ koo war a saytu ba benn bagage du ci manqué ñi nga xam ne it ñoo féete ci wàllu waañ wi maanaam di togg dañuy indi ay ndab di indi ay bagages yoo xam ne dañ leen di xool di ko saytu ba nga xam ne lenn du ci du ci rëq ñi nga xam ne dañoo féete collation itam da da dañ fay yóbbu suñuy élément ñu di leen xool Euh, di di di xool di bañ cambal càmbal ji di surveiller itam bagage yi tey di feexee ba liggéey bi ak fu fi mën a fu fi nit mën a ne ci secteur bu mu mën a ne di ko di ko di ko teg ci yoon. loolu dañ koy seq ak gendarme dañ koy seq ak police di ko seq ak sapeur pompier yi di ko seq ak waa istixaama di ko seq ak safinatul amaan ñooñu ñëpp li leen yëkkati moo ñu yëkkati rek mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ànd ko sëñ euh, euh, sëñ Muntaxa fexe ba. diir bu weeru koor bi li ñu si séntu ci ci ci ndam ci liggéey bi ñu ñu ñu am ko ci barkeb sëriñ bi mbooloo mi itam lu mu bari bari bari bari kenn ku ne fa nga war a ne ak fa nga war a jaar dinañ ko saytu ba nga xam ne benn rëq-rëq du ci am loolu daal mooy taxawaayu sécurité kon ñu ngi euh, itam ñaan collaboration bi nga xam ne dañ ko seq ak secteurs yi yëpp ñu dimbali si jàppale ñu si ba nga xam ne dana yëwén ba liggéey bi niñ ko bëggee ñu dab si ngërëmal sëñ Tuubaa barke sëñ Tuubaa gis nañ ne maanaam saa bu ngeen xëyee wàlla gi liggéey bi yombut tisbaar fi leen fekk te yéen fi mujj da ngeen bàyyi ba nit ñu doog ba noppi da ngeen doog dem tey loolu yombut kon loolu nu ngeen ko doxal tamit waaw euh, laaj bu jara dina laaj nga ma laaj euh, sëñ Mohamed ndax euh, sécurité moom moo war a jëkk booy saytu dara yaa war a jiitu fa nga koy saytoo boo ko saytoo ba pare itam yaa fa war a mujj ndax itam loola day waral ak farlu ci lu fa manqué nga xam ko lu lu luñu lu ñuy lu bunt yi itam fexe nañu ba fenn fu ne ñu def fa suñu agent ba nga xam ne kuy génn waxuñu ne xëy na kenn du fi génne dara waaye dinañ fexe ba bagage yi moom ñu di ko saytu ba lu ci bare bare bare bare bare ba mën a des ci suñuy loxo kon loolu mooy wàllu sécurité ñoo fiy jëkk ñoo fi mujj agent yi ñu am néew na waaye am nañu pas-pas boo xam ne am nañu dogu boo xam ne ñu ngi ànd liggéey bi police itam Euh, mel na ni li ñu bunt yi nga xam ne ci la sëñ bi di jaar di dugg ak génn ak benn bunt bu ne am na fa benn alkaati boo xam ne ma ngay def la mu war a def kon mel na ni suñu xel dal na ci wàllu sécurité bi. ñu ngi taxawoon waa sécurité ñi de sëñ Aliou Gueye ak mbooloo ñi nga xam ne ñoo nekk sécurité bokk ci daal isu dara xeer yaakaar naa ni mu ko waxee ànd koog ñi nga xam ne ñooy police ak mbooloo ñi fi nekk nag kon ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan ci kàttan yàlla saa borom boo leen jàppale ndax sëñ Tuubaa jërëjëf alhamdulillahi sil xufraani wal karami summa salaamani sax baax a baax di santaat Serigne Touba mi nga xam ne moom mooy ko xam ne kii dafay nekk faw te du fi jóg loolu jataay bi bokk na ci li ko gën a mën a firndeel Cheikh Mountakha delloo si na mboolem loo xam ne lii dara demutoon sax waaye yeesalaat na ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te may ko wér ah mboolem bokk yi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ Touba ñu bokk ànd liggéey bi yàlla nañ ko yàgg ànd te ànd seen ngërëmul sëñ Touba noo ngi sant bu baax a baax a baax lii yàlla na yàgg yàlla na yàgg yàlla na jërëjëf kon ñu ngi fii seen émission ndogu wax dëgg yàlla saa su ne ngi koy gis ci kër gi mu ñëw ci liggéey bi te bis bu nekk. mu ànd ak Pastef lool ñu am pas-pasu laaj ko nag euh, dikk gi mu dikk ci kër gi ak euh, yëg-yëg bi am ci bis bi ak woote bi ak teewoon na fi daawit ñaar yooyu jàggat yooyu lu mu ci jàngatee. alhamdulilah rabbil alamin xanaa di nuyu taalibe su suñu mbokk taalibe yëpp te sant sëñ Tuubaa bu baax baax ci fekk gii nu ko fekkee ànd koog sëñ Muntaxa cant gi moom dana am fu mu tàmbali waaye du am fu mu yem ndax mboolem xam taarix wax nañ ne nii la ku baax ki daan defee la boppam fii kon bu sëñ bi dikkee sulli ko ñu ànd ko mu waroon a sant yàlla lool xam naa yéen ñii nag yéen waa xisbu tarxee nag yaakaar naa ne cant gi yéen a ci war a ëppale ndax lii wóor ku xam sëñ Muntaxa xam digg moom sëñ Tuubaa ak ni mu ko yéene liggéey la bu ko ab almaa manoon ca almaañ it lu mu ko laa dana ko jox ngir mu ñëw defal ko ko kon bu ngeen amee tawfeex man ko def ko nag alhamdulilah rabbil alamin rek lan war yàlla ngeen ko yàgg def lool te seen lépp Sëriñ Tuubaa nangul leen ko lépp borom Tuubaa kon mbokk yi waaw ñu ngi fi seen émission Ndogu Tuubaa nii taxaw ak sëñ Moustapha Mbacke moom wax na kenn ku ne xam na ne bis bi mu bu nekk mu ñëw fi moom liggéey bi noonu la ànd moom daaw noonu ñu ko ànd moom ren ñu ànd ko moom kon sëñ Moustapha maanaam taxawaay bi ak uh, woote bi sëñ Mouhamadou Moustapha Mbacke ci kër gi yëg-yëg bi ak gis-gis bi ci kër gi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi din bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki xisbu e, tarxiya ñu ngi leen di nuyu ci seen télé bii di almuridiya nga xam ne seen yitte jëpp ci koor gi du leen ne lu dul liggéey bi nga xam ne Cheikh mun Mountakha da koy def fii ci koor gi ñi nga xamee ne dañoo am tànk-tànk ba mënuñoo agsi ngeen di ko yaatal ba fu waaye maa nekk di ci mën di jot loolu liggéey bu rëy la yàlla ngi ci daje ngërëmul sëriñ bi ñu ngi sant bu baax nag ci lii nga xamee ne Cheikh mun taxa da koo woote te ànd ko yéen di waa daara Hizbut Tarqiyyah ànd ko nag murid yépp ndax ñëpp la ci yaatal ñëpp la ci woo waaye liggéey bu nekk mën la ñàkk ñu ko taxawee kon loolu moo ci seenu cër am ci mbégte mu rëy nag ndax lii Cheikh Modou Mountakha woote képp ku déggoon sëriñ ba démb ci njaareem wala nga xam ko loolu rek la indiwaat ndax sëriñ bi ñu ko xamoon ci koor ñëpp bu koor masa jot nii la mel ñim jafe woon ñëpp day daal di yomb ku ne mën a yegg ci moom ku ne mën koo gis muy joxe it yi ci loxol boppam fu ne maanaam ndawam dem fa wane mbégte lool ak ubbik lool ak yaatu lool Cheikh Ahmadou Mountakha loolu rek la indiwaat ndax eh, maanaam dikk ànd ak mbooloo mi toog seen biir mel na kenn ci ñoom te leen foofu loolu day jàngalewaat rek te dundal weeru tedd wi nga xamee ne weeru alxuraan la di ngën ji weer di weer wi nga xam ne ci la yàlla wàcce alxuraan sëñ Tuubaa fonkon ko lool ba yemale ko ak dara kon loolu lépp day daal di eh, eh, lambo ci biir kon daal moom dañuy sant bu baax bañ ñu yàlla dimbalee ba mu fekkee ñu ci dëkk bi ñu mën di ñëw di ko ànd sëriñ bi kon loolu dañuy defe ne may na ci amee ba joo xam ni ngërëmul sëriñ bi loo xam ne nii du yomb ci la leen kon daal ñi ngi sant tey gërëm te di leen ñaanal liggéey bi ngeen def ngeen gën koo man te it gën cee dajeek ngërëmul sëriñ bi te yàlla kattan leen ci ba li ngeen ci yenn def lépp ngeen mën koo matal ci barkeb sëriñ bi ñi ngi sant tey gërëm jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ kenn ku nekk xam na ne taxawaayam ak yitteem ci kër gi bis bu nekk ci xasida yi noonu rek lay doxee kon ñu ngi ñaan sàmm gudd faram ci barke Sëñ Tuubaa jërëjëf seen émission ndogu tubaa ci kër Sëñ Touba gi ñu ngi fii ci ginnaaw pale bi baas bi nga xam ne moom la fi Hizbut Tarqiyyah def muy baas bi nga xam ne fi la mbokk taalibe yi ndogu see ñu ànd ko ak Euhlou Café ñu ngi taxaw nag Sëñ Moussa Gueye bi nga xam ne ci Euhlou Café la la bokk kon Sëñ Moussa laaj bi mooy yow teewoon nga fi daaw ñu na organisation bi ak mboolem wàccaay yi fi amoon ren nag noo gisawaat taxawaay bi ak liggéey bi Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di ñaanal sëriñ Muntaxa Bachir mu yàgg fi lool te ànd ak wér di barki sëñ Tuubaa jëwriñ ngi jaar baax di rafetlu liggéey bi waa Hizbut Tarqiyyah liggéey bi nga xam si ànd nañ ko ñoom ci ndogu yi nga xam ne si at mu jot euh, daaw lañ ko tàmbali ci ndigalu sëriñ bi euh, ñu nekk ci njàng mi ñun ñi ñu nekk fii ci organisation bi di defar kafe gi di ko joxe. Euh, ci suñu ndigalu jëwriñ soxna maam Issa Mbacke kafe café ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci barke Sëñ Tuubaa ndax ndogu yi mi ngi ko njëkkee woon fee ca ëtt ba <coughs> ndeysaan ndeysaan booba moom rek moo ci nekkoon wante nag liggéey Sëñ Tuubaa boo ci nekkee ba Sëriñ ñëw tey fekk la ci dooleel la dooleel ji mooy lan jël isbu yi tarxiya yi xam si sons danaan wax naan ñooy sama royuwaay boole kook ñoom ni ko nañ ànd ak yow liggéey bi ci ci koor gi kon loolu lu am solo la tey jii nag ñi ngi fii ci ci ci base bi nga xam si moom la fi is bi def da ngeen mbooloo mi ñi ngi nii tey di di di dugg di ndogu si ñu ñu yor wàllu kafe gi ñor wàllu organisation bi wax dëgg yàlla lépp lépp rafet lépp tege ci ak bi xanaa li ñuy ñaan rek suñ borom kàttanal ñu ba lépp lu ñu ci man ren rek bu déwénee ñu ñu man lu ko raw ndax daaw it nii lañ ko ànde woon ak yéen mu rafet ba seen jëwriñ sëñ aatu jaañ ndeysaan bi mu fi ñëwee daaw man mi damaa xëcc boobu ñu mun ma yéndee wax dëgg yàlla li ngeen def dafa kawe sama njot ndax euh, positif bi ngeen am ba mën a taxawal lii wax dëgg yàlla kawe na sama njot man ko nag wax dëgg yàlla yéen it yéen doole rek euh, ndax ñaar ñoo xam ne dañoo ànd ngir jëmmi sëriñ Tuubaa moom ànd ba day yomb lool ànd ba day yomb kon ñi ngi rafetlu liggéey bu baax a a lool waaye di ñaanal nag jàmbaar ji nga xam si moom la ànd liggéey bi muy soxna koo xam barkeelu liggéey mi ngi nii liggéey sëñ Tuubaa la rek man amila saalihan fa li nafsihi wa man asaa fa alayha ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax jëwriñ jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf kon yàlla nañ ko teewe ay at at ci barke sëñ Tuubaa yàgg koo ànd ak yéen ci barke sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jërëjëf sëñ Muntaxa Basiiru lool te ànd ak wér ci barke sëñ Tuubaa jërëjëf jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ne yéen doon teewlu seen émission ndogu Tuubaa seen télévision Al Mouridiyyah TV góor jigéen mag ndaw ñi ngi naan ñëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké sambro guddal fanam yokk ko dolli ak wéram ci barke Sëriñ Tuubaa di ñaanal kilifa yëpp di ñaanal ci kàttanu yàlla mbooleem lu ñu fi jàng ci xasida rek mu këpp suñu kaw ci barkeb Seexul Xadiim di siyaare bu baax a baax sëriñ Adou Diagne mi nga xam ne mooy suñu kilifa di ko ñaanal sambro guddal fanam dolli ak wéram ba yéene ji mu am ci liggéey Sëriñ Tuubaa mu àggale ko di sant bu baax a baax ki nga xam ne moo moo yore caméra bi di Serigne Saliou Wade di sant ki ci xare gi sëriñ Abdou Karim Sagna di sant ki nga xam ne moo ànd nañu ci liggéey bi sëñ Moutala Sey di leen bàyyee nag wax joo xam ne sëñ Tuubaa moo ko waxoon sëñ Mbàkke sa da ko waxoon juróom-ñeent a ngi nii ku leen jàpp raw fii raw fu ñu jëm muy ragal yàlla ragal ku ragal yàlla ragal ku ragalu yàlla bàyyi lu bon bàyyi ku bon bàyyi fu bon loo xamul bu ko wax loo mënul bu ko def loo moomul nanga ca maandu wal tuf bi naa wa xawi naa wa kun la naa wa hëb lana usnal xitaami rabbanaa wa sallim ala nabi wa sallimi wax di bi xaajaati kulli muslimi wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Sedima moo leen doon gunge ci seen émission ndogu Touba. yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiiban yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi